bépp candidat yu samp seen ndënd pour élection présidentielle bu 2024 bañ jëm bëre woon nañ lool tey ci buntu DGI. mu di ndaje bu direction bi yor wàllum organisation wu bi woo bépp mandataire ngir ñu wéccooyee xalaat ci wàllum parrainage. DGE daf ñu woo expliquer ñu parenage bi ñu war a dem ci élection bi expliquer ñu changement yi am. ay coppiteef yi ñu indi ci code électoral bi indil candidat yi yeneen anam yi ñu mën a jotee ci la parrain. candidat yi am nañu ñetti option maanaam tànn sa bu la neex si ñetti option benn bi parrainage citoyen la mooy bu ñu doon def bi ba léegi beneen bu bees bi moo di mën nañu def léegi parrainage par des député wala ñu def ko par les exécutifs. donc des conseils locaux. yeneen coppiteef indi nañ ko ci fiche de collecte bu parrain. fiche yi dafa am nouveauté mooy que discriminant bi nekkatul taille bi mais léegi date d'expiration carte d'identité bi la. beneen nouveauté bi moom moo nekk ne dafa am numéro de fiche pour chaque candidat. yenn ci mandataires yi ànd ak ak xel mu dal gannaaw bu ñu sëkkee ak DGIE yi lee waxtaan. Euh, nous sommes conscients de la fi. wóolu nañ suñu yooyu institution te wóolu nañ itam jumtukaay yi nga xam ni tegoon nañ ko ci élection législative yi suñu candidature dañ ko teewoon ndax euh, problème mu parrain loolu képp moo taxoon. bon citoyen et aussi. candidat yi am ñaari weer ngir dem taataani baatu askan bi jot ci parrain ndax mën a bokk ci élection présidentielle. bu ñu namm am ci vingt cinq février deux mille vingt